salaamaaleykum internet du Sénégal alors ñu dalal fi koo xam ne suñu soppe la suñu lépp la oustaz Modou Fall oustaz ma bàyyi la nga nuyoo ak ñu ñuy seetaan. jërëjëf Aïda maa ngi lay fay nuyoo di la ziyaara bu baax di nuyu Ablaye di nuyu waa Sénégal yëpp xam nga yéen moom yéen a ma dalal Sénégal bi ma ñëwee yéen a ma njëkk a dékk micro ci réew mi maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla taxawu leen yàlla sàmm leen gën leen a ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Mm-hmm. alors oustaz waxtaan bi dina dinañ ko tënk yu bari parce que euh, temps bi moo xaw xat euh, da nekk si ay yitte peut-être ñu commencé si ñaari xalif yi fi génn àdduna barki démb boo amee njaal boo leen def nga ñu ko tàmbalee foofu la. jërëjëf Aïda ñu ngi leen di jaale ñoom ñaari kilifa yu tedd yi fi jóge muy xalifa bu ba sëñ Abdourahim waaye itam ak Chérif Abdoulahi Thiaw Laay mii ci yoof nga xam ni. tabaarakallaahu miin nañ waxtaanam gàmmukat la woon ku daan jàngal nit ñi diine la ci jamono bi nga xam ne mi ngi def ay gàmm bi ñu ko yëgee itam tabaarakallaahu ñu metitlu ko waaye xam ni yàlla moom la mu ni woon xalaxal mawta wal xayaata li ayyukum ahsanu amalan rek moo ci nekk kon ñu ngi koy jaale waa senegal gépp rek di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa yàlla na yàlla teeroo leen aljanna yàlla wane leen ak seeni maam te yéegi leen nag ci aljanaam yi gën a kawe euh, li ma ci jàngat rek mooy yàlla rek moo am pouvoir ndax fekk ñaar ñoo xam ni dañu jiite ay mbooloo nga jëlandoo leen ci benn waxtu walla jëlandoo leen ci benn bis loolu yàlla képp moo ko sañ saa su ne nag mu ngi wane boppam moom yàlla bëgg nit ñi gën koo tegaat palaasam gën koo nangul itam nguuram yenn saa yi nit ñi danañu dem ba mel ni ku fàtte yàlla or yàlla moom ku existé la ndax corona bi mu fi wàccee ñëpp jaaxle kenn xamul lu koy saafara war na tax nit ñi gën koo joxaat bopp xam ni moom yàlla ba léegi mi ngi existé te ku ci nekk rek tabaarakallaahu la nga nekk lépp xam na ko waaye du du def benn benn benn effet pour wan la ni man yàlla existé naa dafay jékki-jékki rek am nu mu doxalee rek nit ñi joxaat ko bopp koo dégg mu naan yàllaa fi sës yàllaa fi sës yàllaa fi sës comme nag bu nu jaaxlee ci moom lu nuy mujj li gën mooy ñu teel koo jox suñu bopp kon nag ñu ngi jàll kilifa yëpp ñoom ñëpp yàlla na yàlla xaare leen aljanna ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> mu bëri kilifa yu fi yu fi génn àdduna ñoo xam ne ay autorité lañ mais oustaz tey su ma la doon wax euh, tey sénégalais nan nga koy jàngatee ci dëj bu amee dee bu amee lay fàttaliku yàlla wala si day xamee ne yàlla am na après day delluwaat ci ci li mu nekkoon est-ce que moment dee rek lañu war a xam ne yàlla yàlla mu ngi fi. Aïda yàlla kenn du ko jaamu ci période sénégalais nag période la gën a mëne su koor gi ñëwee mu commencé muuru su koor gi ñëwee mu sélectionné jàllaabe yi. di muuru di jàng alquran jour korite la koy bàyyi soo amee sa xarit bu génn àdduna semaine boobu yëpp da ngay julli doo jëw da ngay gis koo xam ne dafay am xaritam xarit bi génn àdduna semaine boobu yëpp moom lay estati ak di jooy léegi li gën a yéeme mooy da ngay gis ku ku ku am dese sa xarit génn àdduna ngay jooy di ko filma di filmer say jooy di say jooy tiimale sa bopp téléphone bi na ndeysaan ku baaxoon dem nañu te kat da koy da ngay raxas image bi. Mhm. booy film fan la jooy yi àgg. su nu demee ba nit faatu ngay jooy di film sa bopp yow di génnee jooy yi mooy àggu la fenn. bu nit ki faatoo ñu commencé jaamu yàlla nag di julli fonk jaamu yàlla lool waaye weer ñu fàtte ko commencé ca yee ñu nekkoon fàtte yàlla yàlla nag kenn du ko fàtte ndax ki dem ba tax ngay jooy jàppal ni yow sa bis a ngi ñëw te dee moom al mawtu laa yati illa baxtatan du ñëw lu dul ci mbetteel ku ne war nga koo bàyyi xel kon yéen ñi nga xam ne événement mooy tax ngeen di jaamu yàlla wala ñu tàggee leen seen xarit mooy tax ngeen soppeeku bàyyi leen xel ni lu waay liggéey boppam ak pour boppam la wa an laysa lil insaani illa ma saa lu waay liggéeyul doo ëllëg nanu jaamu yàlla nanu delloo si xel yi nanu rafetaat sunu xol yi nanu bëggante nañuy wax lu baax nanu maandu am na loo xam ni boo bëggee am na foo xam ni boo fa bëggee ak yaa koy sàkkul sa bopp te muy jéem a sàkku yiw jéem a bari la yiw waaye koo xam ni saa yu la seen waa kër gisee nga muuru di julli rek am na lu xew am na koo xam ni saa yoo ko gisee mu muuru di julli rek am na lu xew am na ku faatu am na ku ñu ko tàgge am na koo xam ne dugg na ci STM commencé gis rib yu bari rib rib rib rib rib rib kenn ñaanalatul kenn ku faatu. dañuy yàkkamti statut ba tàggee ñoo xam ne sax xëy na génn looloo leen ci neex xam nga bu njëkk dëj da nga daan dem boo agsee ñuy wàccee kaamil. boo toogee sa xel du dal jooy yi fii. boo demee dëj ba ñibbisi da ngay mel ni ko feebar ndax da gis loo mësta gis bu njëkk bu la néew di romb ñu koy suuli bu la waa ah, ñiy yóbbu armele bu ñu la rombee da ngay daw dugg seen biir kër boo gisee néew da nga koy wax seen waa kër yi allahu akbar tey néew laa gis doo nelaw da am problème da wax bi léegi nag nit ñi ci dëj bi lañuy toog di jëw ki faatu toog ci dëj bi di konte ay jabaram ku ne ñaata kër la war a am toog ci dëj di jëw ki dem te yonent bi ne woon na uskuru mahasina mawtaakum lu ngeen mën a jëw mën a jëw lu ngeen mën a wax wax ju bon wax ju bon rekk waaye bu nit faatoo jàmmal leen ko koy jëw bañ la ni làqu na nga toog ci digg dëjëm di ko jëw moom de xam naa këram gi mu fi bàyyi woon waaye moom de xam naa ni billaay kii feebaram bii moom kay neewoon nañ ma nangam waaye moom tamit bi muy dund kii xamoon naa ni il faut yàlla def ko ah yàlla de bari na yërmande waaye kii ah moom ah, xanaa kay ñet ah, waaye yàlla bari na yërmande ah waaye kii de xam naa ni di jëw rek am ñoo xam ñi ci dëj bi la ñuy toog naan duma naan Fanta. di laajte mbaxal waaw. du ma naan Fanta. rani am na foofu ci biir yow yow miy servir rani am na. ndeysaan toog ci dëj. am ñoo xam ne ñu ngi laaj ndax deuxième plat am na mbaxal. loolu lépp nit ki daf ko war di bàyyi xel. xalaat bis bi muy dajeek yàlla. dee bii mu nekk war na bàyyi xel ni li ko fi jëlee ki tax mu ñëw fi mi mi ngi koy yoot moom mi ngi ñëw. nga bàyyi ko xel. mais place yi ñu waroon di yëgee yàlla yëpp kenn yëgatu fa yàlla ay da loolu moo posé problème bi. Mhm. Mhm. alors tey euh, loolu waxtaan bi am na solo ci côté boobu noonu maa ngi lay wax sànq di suuf leen dañuy tàgge dem ba tàgge sax koo xam ne deewul loolu est-ce que nit am na ci bàkkaar wax loo xam ne wóoru la te fa bëri léegi. mais loolu ay sa euh, ay da ay da ay da bàkkaar bàkkaar yi bokk na ci bàkkaar yi gën a mag fen te loolu fen la xam nga information da nga koy gëstu. yàlla nee na in jaakum faasiqun bi naba in fatabayyanu bu ñu la indilee information ci ayda gëstul ndax lu ñuy wax ci ayda wala li ñuy wax ci Ablaye dëgg la wala du dëgg yàlla nee na bu fekkee gëstuwoo ko ba tax nga yàkkamti wax mbaa nga yàkkamti estati fa tusbixu ala ma faaltum naadimin yàlla neen da ngay di réccu naan su ma yëgoon su ma yëgoon fekk su ma yëgoon passé na kon teeyal lépp luñ la wax ci nit gëstul ba xam dëgg la wala du dëgg mais bis bu ne sénégalais tàggee fi nit mu génnaat def déclaration te gars yi ñëpp ragal dee koo fi tàggee balaa 24 heures mu génn waxal boppam deewuma mbokk yi maa ngi dund maa ngi maa ngi nii sama jàmm ak salaam na ko nit ñi bàyyi nanuy bàyyi di tàgg nit ñi te deewuñu dara jotu leen nanu ko bàyyi fii ku sa heure jot nga dem kenn mënu fee jële kenn te heure am jotul ki ngay tàggi ban sens la am nga koy rey te yàlla reyu ko nanu ko bàyyi ku ne am nga heure ku yàlla tudd sa dee ala kulli xaalin da nga dem. Mhm. alors lii nag bëgguma la ci woon interpeller parce que ay kilifa ngeen waruñoo toog ci ay caaxaan di leen ci laaj ku mel ni Kounkandé mais damay ñëw ci tamxarit tamxarit nekk damay dégg si seen waaraate ngeen ni wax euh, tamxarit ci la ñuy bind luy war a xew euh, ci at beneen bii li di ñëw tamxarit bis bu am solo la est-ce que tamxarit boobu war nañ ko jël di ci boole ay caaxaan. waruñu ko ci jël parce que bu dee ci calendrier jullit. démb la woon suñ ñun suñu première janvier démb moo nekkoon suñu première janvier ñu dugg ci at mu bees maanaam loolu ñu naan bon année di ko envoyé te 31 décembre bu dee ñun démb la ñu waroon di wax bonne année wala bërki démb ci guddi kullu amin wa antum bi xayrin euh, mu am ci guddi koo xam ni nag muy laylatul xadri déggal tam xarit tam yi ci xew dafa bari événement la boo xam ne yi ci daje dafa bari yontu yàlla aadama bi ngay dégg ci bisu tamxarit la ko yàlla nangulee tuubam firaaw na keroog bi mu àndeek yontu yàlla Muusa ci bisu tamxarit lañ ko labal mu nekk guddi goo xamante ni bii walla bis boo xamante ni bii jullit ñi dañ ci baaxoo di ci def ay ñaan boo bëggee jëm long voyage mhm. balaa ngay départ ci ngay sol gasoil boo bañee am problème ci yoon wi moo tax bisu tam xarit comme ñi ngi dugg ci at mi jullit bi nag réparé ci boppam def ci ay ñaan ci at mi muy dugg wax nanu itam ni dogal yépp ci la ko yàlla di décider kii war naa fekke déwén kii warta fekke déwén wax nañu ni loolu lépp ci lay am mhm. muy guddi goo xamante ni bi di bis boo xamante ni bi bisu jaamu yàlla la Seydina Muhammad ñaari fan yëpp la amoon yéene at mu nekk mu di ko woor muy tamxarit ak lendemain bi waaye bi mu wooree ne déwén bu ma fi fekkee danaa ko woor ci diggante bi la génn àdduna événement bu mel noonu ak li ci yàlla dajale nga xam ne dul woon ak Seydina Muhammad li mu ci wax yonent yi liñ ci am seen garaat yu rëy yi ñu amee ko ci bisu tamxarit ci bisu tamxarit seen garaat yu rëy yi mhm. waroon naa tax buñ dee xalaat fo wala caaxaan ñu bañ kaa dugal ci bisu tamxarit waaye Sénégal muy réew moo xam ne dañuy topp kaa lu fi waay di wax danañ la topp boo fenee ñu ne la dangaa fen boo fenee ñu ne la dangaa fen li Kunkande wax ni dana xar géej gi ñépp ngi toog di ko déglu moo ko wax gor gu nekk ca sa kàddu ñépp a ngi koy xaar xam nga loolu du problème yàqalul kenn dara ku ne ku neex toog sa saal bu dee télé yi dañ koy def direct nga toog sa saal seetaan ko amul problème da koy xar nañ ko gunge kenn bañ koo yàqal mu dem xar ko bu dee mën na koo xar mu xar ko ñu gis c'est simple man de commentaire boobu nee nañ ma oustaz pourquoi nga naan <laughs> kunkante ñu ngi lay xaar boo ko loo koy wax leneen da ko naan bu ko xar <laughs> boo ko nee <laughs> te bëgg na koo xar ba pare nañ ko bàyyi mu xar rek te ça fait l'occasion bu fekkee ko xaree di seen miiru Espagne gars yi dañuy mën a taal seen oto rek dem ndànk te du ànd ak benn bruit. Mhm. xam ne tey ñu ci bari ñu ngi préparé fi mu ne nii nag ñu ci bari ci xar gi lañ dépendre ci xar gii la ñu bëgg basé wu pour dem Espagne xam nga ñooñu bu tasee seen yaakaar tamit ah. ñi bëgg a dem Europe dépendre ci Kounkandé bis bu tasee seen yaakaar loolu du ko jik kon nag na ko xar ñu ngi koy xaar avec plaisir. di ko di ko waajal euh, ñun ñi nga xam ne nag soxlawuñoo tukki danañu fexe euh, ñëw gunge ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem ñaanal leen yàlla defal leen tawfiix ci voyage boobu incha allahu rabbi Ablaye moom xam naa day dem waaw Ablaye moom xam naa bu ko defee ñu waajal la sëriñ rek Ablaye la tamit laaj boo xam ne ñu bëri dañ ko dañ ko dañ ko bëgg a xam mhm. c'est-à-dire jullit fan la war a toog ba ñaan fan la war a fan la war a toll ba ñaan est-ce que dafa war ñaan ñaan ci jullit lan la parce que damay dégg ñu naan loxo bi nekk ci kaw moo gën loxo bi tàll ci suuf alors jullit fan la war a toog ba ba jaaxle ba ñaan. xam nga yàlla dafa wax ci alquran ni ñaari façon nit ñoo am ci àdduna. ay ki nga xamante ni bii ñàkk na ba mënatu la supporter ñàkkam mu tàllal loxoom ak ki nga xam ni Aida ñàkk na ba mënatu la ñàkkam mais ngoram mayu ko muy tàllal loxoom ñaari nit ñooñu ñoo fi nekk. ñaan araamul jullit am na droit bu demee ba toll ci xat-xat mu sàkku ndimbal ki mu yaakaar yàlla ni yow itam ayda soo ko mënee dimbali wa amma saaila fala tanhar koo mën a dimbali ci laajkat yi dimbali ko te bu ko toroxal Sénégal nag danoo xàmmewul sàkku ndimbal ak ni diw moo ma war dimbali far force xam nga Sénégal léegi lu fi am soo àndeek ayda mu interview la ñeenti émission soo feebaree da ngay génn ni Aïda ma war a faj pour pourquoi Aïda war laa faj parce que Aïda defal na ma interview cinq fois est-ce que Aïda mi nga ni war na laa faj am na lum la fajee d'abord beneen bi mooy ayda defal la du farata du force ci moom xam nga sénégalais yi dañuy da ngay gis benn milliardaire wala benn millionnaire mënul faj ñëpp mënta jàppale ñëpp mais jàpp nañu ni tey nit kooku yàlla dénk teraanga ci benn famille ku feebar ci famille bi moo la war a faj famille bi yëpp ku feebar moo la war a faj ñi amul dépense moo leen ko war a jox ñi amul kër moo leen war a jox kër est-ce que am amam toll na fa est-ce que mën na ko tey bu nu bokkee mag yow benn famille yàlla dénk ma as tuut ci teraanga ma ciy suturlu famille bi bu nu gàttee xel dañ may mere wala ñu may abandonné parce que dañoo jàpp ni maa leen war a yor maa leen war a defal maa leen war a jàppale or que du noonu nañuy teey te nit ku nekk lépp looy wax nga seet ci sa digganteeg sa borom ayda am na loo xam ni bu la ko bu la ko sa ngor jaral bu la ko bëgg bës jaral bu la ko caméra yi jaral lépp looy wax xool ci sa digganteeg sa borom kenn mënta jox ñëpp yàlla mi ko mën defu ko yàlla su ko neexoon ñëpp nekk ay milliardaire waaye alaaji Ibu Saaxo daan na wax ni bu ñëpp nekkoon milliardaire suñu foos yi kenn du ko ngacc mm-hmm. koo ni kaay ngaccal ma ne la du morom bu ñëpp nekkoon milliardaire suñu kër yi kenn du ko tabax bu ñëpp nekkoon milliardaire mbalit mi kenn du ko tuuri yàlla mi ko mën joxul ñëpp day jox ñi xañ ñi pourquoi yow mi nekk milliardaire ci benn famille ñu jàpp ni famille bi yëpp yaa leen war a yor fan la tegu góor góor góorgóorlu pour amal boppam bañ a dépendre ci kenn na sa papa nekk milliardaire sa mag nekk milti multimilliardaire bu lijjanti alalam yàlla ji ko yàlla mi ko ko jox soo góorlu mu jox la lu ko ëpp parce que yàlla ba léegi mi ngeeg marchandise mu amagul borom duma ma dépendre ci sama mag du ma dépendre ci sama papa duma ma dépendre ci sama yaay nañuy doon multimilliardaire xam nga lu ma intéressé sama nguur ak sama jàmbaar ak sama fayda ma fexe ba li nu am ma am lu ko ëpp mais toog. ci TikTok moom ñaan ba tamit ci ah. TikTok dañuy ñaan rek de yéen tamit xam naa war ngeen sonn yére boo leen sol ñu ñaan leen. mais xam nga Aïda ndeysaan am na ñoo xam ne ndeysaan tamit xam nga. xam nga xam nga xam nga xam nga am na loo xam ne ku ko mën sax war kaa rus. xam na loo xam ne ku ko mën war kaa nit dafay sagal boppam nit dafay sagal boppam doomu aadama du doyadi ay da yenn saa yi nga gis ku nu jànni publiquement da ngay sax rus yenn kilifa yi mënatuñoo ñëw ci yenn ndaje yi boo ñëwee ñu wër sa oto ku ne di la xëcc koo joxul mu mere la nga am problème sérieux boo wutee ay garde ñu ne daa fuuy bërki démb la fi nekkoon yorul dërëm nangam ak nangam te mënoo jox ñëpp mais ku bëgg ñëpp kontaan dangay nekk naa féq kuy génn këram xamoo lu mu génnaale waaw moom de dafa nay nangam ak nangam mais nit ki li mu am ci teeyu bakkanam bu la koy may ci la la koy may te li dàq mooy ñaanoo ma may la mais may ma may ma may ma may ma may ma may ma foo toll amoo jàmm mënoo yor ñëpp Sénégal day réew mu méttee méttee métti neex a dunde eh, naqaree dunde neex a dee Sénégal mooy réew moo xam ni neex naa deewee parce que boo fi deewee luy garaatu mbaax danañ la ko tappal réer nanu ba dem nax nanu ba dem bi muy dund xamunu ko kii ndekete nitu yàlla piir la woon daa jaxasoog nit ñi rek waaye bokkul ak ñun bi nga deewee. am ah, est que nit bu deewee tamit la soxla ñu koy wax. mais parce que am na loo xam ne bin am am na ñoo xam ne li ñuy waxal nit ki bi mu deewee bi muy dund xamoon nañ ko te waxuñu ko. parce que xam nañ ni instant bii bi mu koy wax nekkatu fi ki nga toog dëjëm naan dafa baax moo ma gën dafa rafet xol patati patata bi mu faatoo bi muy dund lu ñu la wax ci moom nga wax lu bon yenn saa yi nga gis ku seede fekk am na ku ko xam koo xam ne mas naa dégg mu wax ci moom kàddu bu ñaaw mu ni pat dalay xool rek di ree tey li nga seede ci dëj bi est-ce que ba muy dund lool nga ko seedee lool Sénégal loolu la nu mën boo faatoo lu rafet ñu takkal la ko waaye cëy booy dund lu nu mën ci kàddu bu ñaaw yenn saa yi nit faatu nga toog ci télé bi di seetaan ay reede lay jàpp ay jékki jékki gis ku dugg hmm, hmm, hmm, ñàkk nañ billaay monument dem na ki nu ñàkk xamuñu ko te bi muy dund nangu woon monument la bi mu faatoo ngay doog a accepter bi mu doon mais bi muy dund mosoo koo nangu nanu bàyyi tricher nanu bàyyi wax lu nu gëmul nanu bàyyi jayante bi tey waxante dëgg ànd jayante wéet jëwante moo bari ci réew mi su may ànd ak yow loolu a neex laa lay wax suñu wéetee ma lay jëw yow koo xam ne danga nga ni mooy sa doomu ndey kolkërisi te fuñ koy jëwee yaay jiite débat bi na xarit gi alors ci xaritoo boobu noonu da dañu gis léegi Sénégal lu lu doy waar da ànd ak nit lu yàgg nga xëy rek ci biir mu génn ci internet bi wala génn ci réseaux sociaux yi daal di lay daal di lay weer daal di wax say biir xamaloon la sa biir xamaloon la sa biti daal di koy weer ci biir internet yi wala woo presse bi daal di wax li mu la xamal lépp loolu lan nga ko gisee léegi ci Sénégal est-ce tiitoo ci tamit. Eh, Aïda Sénégal moom xam nga li ma yàgg wax rek ku yebu booy wut xarit nga jël sa yaay def ko sa xarit doy na sëkk ñi ci des ñëpp booy ànd ak ñoom fexeel ba am mat ko doy ne bu nu xam ci yow doyadi nit ki bu la xamul bu la xamalul dara du la mën a yàq nekkatuñu ci jamono yaay sama doomu ndey kolkërés yi sama lépp danga nga koo war a xam nekkatuñ ci jamono boobu. bu njëkk nag amoon na am na koo xam ni seen diggante day àgg foo xam ni loo xam war na koo xam mais jamono laajatu ko nit ñi dañoo foo dañ lay way wan kanam goo xam ni nekkul ci ñoom lu ñu la xamal bis bu ngeen xuloo wee ñu weer la mais jaru ko looy wut xarit àndal ak ñépp di maslaa ak ñoom mais na nga fexe ba say secret na nga ko gardeel sa bopp loo def ci lu ñaaw ak lu rafet na nga ko nëbbal sa bopp bu dee lu bon boo koy jéggalu nga jéggalu ko yàlla waaye di partager lu bon sa diggante ak sa xarit baaxul parce que lum la xamal dalay weer te gis nga fi ay xarit yoo xam ni dañu fa ñuy mujjee mooy fan ku ne di def live di gaaruwaale sa moroom di attaquer sa moroom di xas sa moroom di tontu sa moroom parce que léegi lépp ay tontonte la loolu li ñu ci war a jàngee mooy nit ku nekk jëlal sa yaay nga def ko sa xarit soo jaaxlee waxtaan ak moom boo bëggee yàlla di la suturaal ngay teral sa yaay foo toll bëgg sa yaay yéene ko jàmm teg ko ca kaw bu la neexee sax bu la wuti sëriñ parce que sëriñ quatrième position la ci dund doomu adama gannaaw yàlla Seydina Muhammad sa ñaari way jur sëriñ quatrième position la su la neexee doo ko am yàlla waxul fenn ci alquran ni am leen sëriñ far force sëriñ bu mag bi mooy sa yaay gëm ko wóolu ko yaakaar ñaanam loo am sédd ko ca loo yootu jot ko ay xarit yi nga xam ni kenn gëmu ci kenn xaritu triche rek sama doomu ndey kol kirisi sunu mariage bi nangam nangam jigéen ñi ko ci sa xarit di sëy dangay jël événement bi réyal ko ca kaw te gëmoo ko bu ñu dajee ci xew mi siisante bi waxante lu ñaaw li yenn saa yi nga gis koo xamante ne bii dafay dem bay defanteeg xaritam xam nga xaritu léegi ay rival moo ci ëpp bu ñu waree ànd maag yow dooma dàqale sañse ah loo am bu ñu sañoon mu yàqu am na ci ñoo xam ne dañuy ànd ak yow nii nii nii rek mais ànd bi ñuy ànd ak yow gëmuñu ko loolu nag moo yàq diggante yu bari moo tax yàlla ni al aqillaau yawma idin baaduhum li baadin aduwun ila al muttaqin yàlla nee na yenn xaritoo yi ci bari ëllëg yowmal qiyaam suñu dekkee ñaari xarit yi dañuy bañante parce que ànd ba yàlla lalu ko woon moo tax sunu ànd yi nanuy fexe ba muy nekk àndu dëkk. Mhm. alors ma ñëw ci beneen thème boo xam ne nag marié yi ñu bëri soxal na leen parce que damay gis góor ñu bëri dañuy signé monogamie après toogaat ci rajo bi sama jëkkër takkal na ñaareel mun naa ko yóbbu justice alors monogamie ci kaw kàddu ci kaw kàddu bi nga waxal sa jabar la polygamie yàlla moo la ko may alors ci kaw kàddu boobu ak li yàlla santaane lan la si lislaam wax moo warta signé benn jabar même boo ko naree bu ko def looy signé yow yàlla nee na la takkal kaat soo ko mënul nga yem ci benn takkal sa benn te bul xamal sa benn bi ni ko ci yow laay yem parce que jigéen boo ko nee ci yow laay yem mu xam ni doo ko mas a takkal wujju mais lu ko neex def te jamono bi dafa changé da ngay génn di xëy daje koo xam ni cofeelam da lay dugg amatoo maîtrise moo tax danaay faral di wax góor ñu bari nañuy teey ayda góor ñu bari nañuy teey rawatina ñi nekk bitim réew te ñëwaguñ senegaal application yii ku ci takk jabar dalay trompé de ayda ayda mbaa xam nga ni xale yu jigéen yi léegi yamatuñ ci application ah. koo ci dugg saalam mi ngi làmp bu mag bu leer bi su demee bay photo wu sinap bi lay jël ci lay photo changé make-up bi tiimale boppam lumière bi taxaw ci digg saal bi photo wu defar ay xefam yamu ci am na ci ñoo xam ne ña ngay dem ba Maroc di defaraat seen forme ñii di takk ay geen la xaw ma ku ci moytuwul geen yi nag da nga wàccu li nga reeree démb parce que naj sa biir bi ngir torompi nit képp képp képp naj sa biir bi pour jéem a créer ndigg lu sew te amoo ko naj sa biir bi ba doon noyyi bëgg forme di kéréel sa bopp loo xam ni amoo ko pour lan tromper nit ki naawoon nit ñi ni nii laa mel takk sa géem xaw ma géem la xaw ma géem <laughs> takk sa géem bam ni fiip da nga ci gis ci gis ku tëdd faatu ñu naan fii la nekkoon ak ñun ba fekk géem gi la fàttee tekki demee leen naturel ni leen yàlla bindee mais tromper góor ñi photo ci làmp mm. taxaw seen digg saal ah mais Oustaz loolu dañuy jekkal jël ah, sinab bi mais naxaate la <laughs> jël sinab bi photo ci boo paree doog a raxas doog a filtré te xam nga iPhone 12 portareem beneen affaire la. mais nga photo sinap teg ci. tiimale sa bopp lumière bi yónnee ko góor ma nga bitim réew lu mu am envoyé la ko photo yu rafet yi lay jël di ko wan seen waa kër kii laa bëgg a takk ñu naan ko dal nga ci or ko kooku du nit ki original kooku ki iPhone bi defar la mais du ki nga bëgg a takk. bis bu ñibbisee ba jàkkaarloog moom añ ba pare sol seen ngàll yooyu doo bëgg lu dul mbéj rek dóor mu daanu parce que kanam ga nga daan gis kanamu iPhone bi la bokkul ak kanam original bi naxaate yooyu tas yaakaar la wut sa iPhone sinap ko raxas say photo tiimale sa bopp lumière yi yokk say xef raxas ba mu jekk toog sa digg saal di sinap naan bi ngi tolloo fan la tolloo we eh? fii lépp a ngi toll lan moo fi tolloo lan say naxaate yii nan la tolloo tolloowul bi tolloo mooy bi yàlla bind xalaxaka fa sawaaka fa adalaka fi ay suuratin ma shaa rakkabaka booboo tolloo boobu amul benn tappale ni nga judduwaalee noonu nga mel naturel kon ñu ne bitim réew nanu teey am na solo de ku ci bëgg jigéen ba dugg ci sinabar yii bis boo bis boo mo carte d'identité photo carte d'identité mooy bu assuré bi boobu rek mooy seen original yi ci des yëpp ay naxaate la mhm. su ko defee ñu moytu ko signé ñu bàyyi ko looy signé eh, <laughs> man ci yow laay yem dootuma takk keneen <laughs> karaj yow yaay kan looy signé jigéen def ba pare dem dakk nag mais loolu war li ma lu taquluuna maa laa tafaaluun lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def la yàlla wax yaa ko wax ak sa moroomu gor kay gérer ko rek koo mën a gis supporté ko muñal rek ah yaa dugg ci gaalu wala kaanati muñal rek dangaa ñàkk xorom bay signé benn jabar ñàkk xorom muy te kat ñi tubaab yu ñuul yi ñoo ko gën a mën de tubaab yu ñuul yi di watar watar yi nii ak seeni costume bon j'ai j'ai monogamie parce que y a des jours qui passent ñoo ñooy dof yi ñoo ñooy signé ay benn jabar gis keneen dressé boobu ma ba va se va marier ah, euh, il faut ñu def ko takk suuf bon j' ai j' ñoom ñooy def takk suuf yi takk suuf ñoo koy def. Mm. parce que ñeme wunu te jigéen ju ñàkk fayda képp ay nangu góor jàkkaarloog yow di la imposer takk suuf mais ku am fayda kenn du ko ko wax nanu moytu signé benn jabar booy siñe ñaata ne ko quatre femmes looy signé. ñeenti jigéen. benn ñaar ñett ñeenti jigéen lay signé. am na loo xam ne nag jour boobu seen jabar yi dañ leen di mere de. am na ñoo xam ne signé quatre waaw boobu seen jabar yi dañuy mere. Eh, Aïda góor gu am fayda jigéen du ko conditionne condition yi ma bëgg man mi la takk jële la sa kër ndey ak sa kër baay ci ngay ànd ak man mooy ñeenti soxna lay signé jamono mën naa dox ba ma gis keneen takk ko dama koy takk. mais bul signé benn jabar loo koy signé jamono bi dafa changé da ngay jékki gis ko bëgg mënatoo ci dara raw na la parce que benn nga signé booy takk di dem yowmal xiyaam justice rek ndax nee naa takk sëy yi ci jàkka yi lañ koy takkee tasee ko tribunal li tax ñu koy tasee tribunal nag moo mat a seetlu mooy yenn saa yi jigéen bëgg a divorcé nga ni ko duma la fase ñaan na baat guddi ñaan baat bëccëg nga ni ko duma la fase parce que duma la jariñoo mais keneen du la jariñoo lu ñàkk fayda la maa la bëggoon bëggatuma la ku la ko wax nee ko sa ngelawal jàmm parce que bokkul ci ngóore di téyeeg jigéen di ko souffrir bañ koo may baat te moom bëggu la faalewu la jàpp na ni sa diggante ak moom jeex na ñi nuy bàyyale ñi nuy bàyyale diw si yow laa ko bàyyale nañuy jël seen responsabilité ci sëy bi sëy bu am problème ñu woowi kañ bàyyee la mu naan man du ma fekkee fu ñuy ñaanee baat yow yaay kan ba nga fekkee fooy jëlee ba yu bàyyi bëru ba ba yu bàyyi ba nga amee ngoruk lekk ba yu bàyyi nga war a am ngoruk arrangé mbaa am ngoruk fekke fu ñuy tasee sëy bi kon nag signé benn jabar moom yàlla nañ ci yàlla musal Mm-hmm. alors euh, ci ci ci sëy bi tamit ñu bëri dañuy dund lu metti surtout jigéen yi mm-hmm. léeg nañu ustaas yi ñoom dañuy wax jigéen da nga war a fonk sa boroom kër moo la yóbbu àjjana dugg na fii génn na fa mais waree fi góor ci biir sëy des fois góor ñi tamit mat na ñu leen di fàttali lan moo leen war si seen si seen soxna góor li ko war ci soxnaam mooy dëkkal dëkkoo kodd yor dëkkal soo demee bay takk jabar amal foo ko dugal réew mi ngay gis ku am quatre femmes te amul moom roq ba fanaan bàyyi leen ñoom ñuy wuti ay appartement moom muy wër di parang parangi di aye ñàkk fayda la jigéen ñi it bàyyi topp ci góor ñi di daw ba àddunay baax da ngay toog bañ fekk la sa kër ñëw takk la mais topp ci góor di ko financé lu ne nga defal ko ko te yow ci sa conscience bopp xam nga ni kii du la takk mais nga yor sa nobu indo goo xam ni kenn mënu la koo wax bu la bàyyee nga naan da ngay feebar rek j'ai rek j'ai maigrir parce que moi je l'aime beaucoup moi je suis si si si si da ngay tardé seetil ki la bëgg mu dem takk la nga dem sëyi ji topp ci ginnaaw góor di ko defal lu ne Sénégal ngay gis ku ñàkk fayda koo xam ne musicien bi mu topp di ko financé mën na koo jënd te kat du ñu bëgg koo xam ne yow leer na leen ni kii am na avenir ay musicien ay caaxaan kat ñoom la ñuy topp di leen financer topp ci seen ginnaaw di yappar yappari musicien bi oto bi muy dawal dawaloo ko moo la ëpp alal ëpp ko sa baay ngay liggéey moom di ko jox muy dundee nga naan je l'aime beaucoup parce que xaw ma mais yëfi dof kañ ngay avancer góor mooy defal boppam defal jabaram bul financer kenn liggéey sa alal jii daw di ko jox góor fukki at leer na la ni yow kii nobu la xam nga jigéen ñi coow lu coow li dañoo mën a dof dof lu rek mais dofuñu de ñoo la gën a xam ni kii bu leen ñoom ñooy dof dof lu di fowee seen xel mi di def yëfi dof ak di góor ki mu bëgg da koy indi këram ki mu bëgg da koy takk ji indi ko ci biir këram muy daaw yow mi mu bëggul nag dalay lay tegal chaise saa yoo saa yoo ko meree bu la woowaatee bu waxee nga wàcc c'est-à-dire mënuma laa baax nga wàcc su ma la mënoon a bàyyi duma la woo nga wàcc nanu gëm seen bopp góor ñi téyewaat jigéen ñi kenn du saaga sa jabar góor gu yiw du saaga jabaram ay góor ñi nañu amaat teggin nañu bàyyi seen jabar yi ñuy saaga nañu bàyyi seen jabar yi ñuy toroxal nañu bàyyi seen jabar yi bàyyi seen kër ndey ak seen baay te duñ leen defal dara jigéen ku ko takk danga koy koddu da nga koy woddu jigéen joo xam ne mi ngi sëy ak yow benn mbubb mu baax mu mu mën a demee ci cérémonie amu ko fu mu jëm day àbbi ay xaritam amul lu mu sañsee amul dara yow doo ko defal dara waaye bu dee doxaan nag boo génnee maye ay million ñi dàq doxaan dàq financé seen jabar yi duñ sol lu baax loolu ba kay boo takkee jigéen kay mu bàyyi ñëppam ñëw di la sëyal da nga koy taxaw da nga koy jàppale danga koy sagal jigéen da ngay wane sa bopp li nga mën ci moom mooy ku ko gis xam ni kii mi ngi ci ay loxo yu wóor namul dara xelam dal nga di ko toppatoo di ko jàppale di ko sagal muy xëy di la gën a bëgg lii mooy ànd koo dem ba bëggatoo ko nga libéré ko mu dem mais tey fasewu ma la naa la fi bàyyi ngay souffrir defalu ma la dara nga topp sa càmmiñ ku ne nga woo ko alu orange ma ne ma alu wave ma alu orange ma ne ma alu wave ma di ñaan say càmmiñ bañ mujj jéppi la parce que ki nga nekkal du la defal dërëm te am nga njaboot ku la jàppalewul du baax nga mujj ku ne nga lakkal ko alu may ma nangam may ma nàngam parce que say càmmiñ nga am te boo jaaxlee ci ñoom nga jëm te ki ngay sëyal jàppalewula taxawu la moo tax am na ñoo xam ne tey bu ñu doon def test ndax war nañoo am jabar wala déet ñu ci bari dañuy positif parce que xamuñu nu ñuy yoree jigéen xamuñu kanay jigéen ñii takk jabar ñu ci bari xemmem la ñuy def bu ñu la takkee xemmem la trois mois yu njëkk yi day neex parce que premier mois bi sali ngeen koy passé deuxième deux mois yi des ngeen passé ko seen appartement beneen mois bi nag ci lay commencé indi tànk bukki bu waree aye si du ñëw wala buy ñëw cinq heures du matin lay ñëw problème yi dugg ñu ne problème yaa ngay démarré taf taf say ba tas na jigéen ñi it bàyyi di sëyee xaalis ku ci dégg ñu naan taux bi yéeg na ba tax ngay xaar taux bu yéeg da ngay lamb boo gisee ñeent ak trace demal sëy ji taux bu yéeg bii bu ci dépendre góor gu baax gu la bëgg ñëw pour takk la demal sëy ji toog fi nga toog ne kew keweeral naan damay xaar ay six millions ak i huit man huit millions toogal di xaar huit million bilaay di nga xam ne huit million xaru laadum la yombul de góor guy ñëw di la ko may bokk boo gisee mille cinq cent yi demat demal journée mel si mille cinq cent yi ñu koy am mu ëpp barke te la ñuy la ñuy liggéey dagan na te lew na mais huit millions yoo xamul fu mu jóge xamoo ci ay dóor lañ koy amee xamoo ci lañ lañ koy amee nga jàpp ni loobu gudd bi ci nga war a sëy ku koy def sa loxo ngi ci xott. <laughs> alors euh, ba jeexal nag ma laaj la tamit ci yàq der yàq der yi tamit bëri na instant bi Sénégal euh, koo xamul sax da ngay yàq deram benn oustaz Modou Fall da nga koy gis si télé bi rek xëy oustaz ñoo nii nii fàttali sa sa nga nekkee woon ak di di Sénégal bëgg maa xam ba pare di di ko wax lan nga xamee loolu. jikkoy sénégalais la. ñaare fa nga dëkk su la yàlla mayee lenn ci teraanga duñ la duñ la accepté ñoom ña la waroon a gën a yëkkati ca kaw ña nga dëkkal yonent bi màkkatal mukarram la juddoo ñoo ko génnee màkka mu dem madina ba fi yonent bi jógee ba léegi nag nit ku nekk seetlu li ma la wax ku teraanga dab wala tur dab la wala succès dab la koñ ba nga dëkk ngay gën a ëpp ñu la contre parce que dañoo fekkee sa démb bu nekkoo fi woon dara xëy xëy yàlla may la lum leen mayul ñoom ña cay nangu ñu néew lay doon te sénégalais dafa bëgg diw maa ko xam cër boo mën a am buñ ne woon tey yow lañ nommé xalifa général bi tey nga yilif ñëpp di nga dégg ko ni billaay yàlla kay dama xam ne kii bërki dem bi muy fubal ci koñ bii man kii mënumaa jaay affaire yaayam may naa ko reer ba tàyyi magam ju jigéen suñ kër la daan ñaan see reer xanaa léegi la rek waaye ñaan ba am reer kay may kuy ñaan reer ba am reer kay di nga lu mais sénégalais mu bëgg diw maa ko xam di zise koo xam ni xamoo ko fu ñu la tuddee nga bëgg a jaay daraja diw sama booy la diw nangam ak nangam maa ko yar mas naa ko wax benn mbokk mu ne ma diw nee na xam la moo la yar ma ne ko day fen ku la ni moo la yar te may tàngal man kay grand yi ma xam naa leen mooy ñi ma daan may tàngal nga romb leen ñu naan la booy kaay nangam di la yónnee boutique ba mais dafa ñoo xam ne ci loolu la ñuy dund diw maa ko yar diw xam na am na ñoom dañ lay woo sax def la à toog ak nit ñi aloo waa sawaay ci loolu ne sawaay yow daal doo nitu dara rek sawaay daal yow di la jànni ay baat yoo xam ni li nu ci bëgg mooy wan ñi nu toogal ni diw mi mm. miin naa ko moo tax da ngay def ni man noppalu mm. kuy wax waxi dof doo ko wuyu sama téléphone bii waxi dof du ci du fi jug fii mm. ku ma ni kar ma déglu la booy commencé waxi dof ma naan la karaj ba ma xamee fi ñuy bloqué ba léegi na damaa noppalu jàng naa ko ci Facebook jàng naa bloqué Facebook hmm. jàng naa bloqué WhatsApp xaw ma ko woon mais léegi xat nga lay na ma ne la tay dootoo gis profil heure boo noppee gis profil mooy yaa ngi ca mbalit ma noonu laa lay def sama dund gi ayda dama ko organiser sama bopp hmm. man fexe naa ba li ma yàlla defal du doomu aadama moo may jële fi ma yàlla teg ni ma yàlla defal ba sénégalais yi bëgg ma ba yàlla may ma tey li ma may ci senegaal yàlla mi ko def moom dong moo ko mën a dindi mais du nit moo may jëlee fi ma yàlla teg du wax ju ñaaw du commentaire du wax ju bon amul lenn lu mën a wax ba ma jóge fi ma nekk te ki ma gëm muy kii lu ay am moo la ko jox sonn lu ma sama bopp gëm naa sama bopp dégloo ma ay waxi commentaire yenn saa yi ñu ne ma diw pourtant bi muy waxtaan karaas na la sànni na la xeer nangam ay man boo ma ñorul ñaare duma la xool boo ma ñorul duma la xool amul nag ku yàlla bind muy ustaas muy sëriñ muy ku mën a doon ku yàlla bind ku mën a wax ci ustaas Modou Fall ba mu génn tontu la amut moom doo ko dégg moom ci kaw suuf ma génn di la tontu waxal ci man lu la neex amul problème parce que boo waxee ci man te fekk bi ngay wax ci man yow 10 pour cent nga man su ma la tontoo mën nga dem ba 20 pour cent parce que nit ñi dinañ gëstu ki oustaz Modou Fall di tontu kan la parce que maa la ëpp tur looloo tax nag loolu laa lay iñaane nag ba du ma la tudd damay naj affaire bi lu ma métti métti du ma tudd sa tur danaa kon naj gérer ko waxal lu la neex commentéeral xolal doo dégg ni tontu naa la de affaire bi kenn mayatul kenn loxo di la may loxo nii pour nga jug xalaatuma ko. jaaral ci benn commentaire bu musa lire mu metti la. boo xam ni dégg naa ko mu metti ma. wala ñu wax la ko. non wax na diw wax na la diw si yow. non wax dëgg yàlla dama cee yar sama bopp Aïda. Mhm. damaa yar sama bopp ba commentaire du ma metti sama oto vitre teinte la doo ma gis yenn saa yi ma dem fenn réer wàccee verre bi rek laajte ñu teg tegtal ma ma continuer yenn saa yi itam sa verre wàcc wala ngay dem fenn. di sol essence wala dara kenn romb la sànni la benn kàddu nga dégg rek ree bu fekkee ku la xas nga tontu ku la wax lu bon nga tontu ku la saaga nga tontu ay di xanaa kon da ngay jàngi karaate benn yoon rek di sol gilet foo toll xam ne tout le temps pare nga pour xeex mais noonu Sénégal gii mhm. Sénégal bàyyi wunu kenn xalifa général yi dañ leen di xas ñëpp la ñuy xas li ciy solution bi daal mooy xam ni yàlla mi la fi teg moo la fi teg te kenn mënu la fay jëlee te sa heure dem jotul. Mhm. man de fi ma rayante ba àgg fa du wax ma fay jëlee. lobby bi ma xas a dugg bokk ci la ma fay jëlee mooy yàlla mhm. ku dul yàlla mënoo ko te xam nga luy lobby bi mhm. gëm sa bopp fonk say ñaari way jur sàkku seeni ñaan ba am ko jéem a xool noo avancé jéem a xool noo amee xaalis te mu lew te dagan lu sa yoon nekkul sa yoon nekku ci koo gis nag jox ko cër man ñëpp laa respecté Tiwaawoon Tuuba Kawlax Njaasaan ku ci xewle danaa dem am ak ñëpp nag wëllëre man kër goo dugg am naa fa soppe li may faral di wax ku bañ Oustaz Modou Fall bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko Oustaz noonu lañ lay woowee est-ce que yëg nga loolu mais man dama mais damaa bëri tur Oustaz 2.0 Oustaz 2.0 Oustaz noonu Oustaz WhatsApp Oustaz internet oustaz jamono oustaz fashion tur yëpp bindoon naa ko tur yin may woowee dafa bari man xaw ma nag ban laa ci tudd <laughs> mais daal bari naa ay tur lool lool lool oustaz buzz oustaz jamono man lu ne lañ man tur bu ne am naa ko barki démb dama taxaw ci station benn xale génn <laughs> oustaz estati lu ne am naa ko tur boo xalaat ci àdduna rek am naa ko waaye daal waaye non non ah. non non waaye daal xam naa ni bi ma ci tudd daal mooy Modou Fall. Modou Fall boobu daal xam naa ne moom moom moo ne ci carte d'identité bi. fu ñuy jeexalee rek mooy ñu bëri ñu ngi naan TFM nag daa ma xam a wàññi sa code buzz parce que oustaz Modou Fall dañ ko xamoon muy def vidéo gars yi di partager. yow da mhm. nga amoon sa télévision boobu da ngay def sa vidéo daal gars jël partage mais TFM léegi dañ lay duggal ci ay émission yoo xam ne ay werante la wala ñu invité la émission yoo xam ne ay werante la ñu oustaz Modou Fall daal xaw na xaw na kii nag <laughs> bàyyi vidéo dem dem dem si kii lu tax mais xam nga Aïda. Euh, wax yooyu tam yaa ngi ko doon dégg. waaw xam nga ñu ci bari ñu ngi naan ma waaw vidéo yi nga daan def continuer ko chaque jeudi wala chaque vendredi nga def benn vidéo cinq minutes ñu partagé ko. mais xam nga nit ku nekk tam xamoo sa àdduna ni muy doxee yàlla moo lay kondiiral boppam bu ñu nekkee ci benn affaire tey ba benn télé gis ñu bëgguñu nañu kat li ngay def neex na ma bu nu sañoon danañ la jox nangam ak nangam ak nangam nga ñu koy defal ah mënoo lu dul def ko parce que tam xay na vidéo yi yaa ngi ko doon def di ci am yàlla di ci am yonent bi mais daawoo ci am xaalis de léegi nag bu ñu la woowee foo xam ne moom boo paree boo liggéeyee ba pare ñu ne la lii nga fi am nga jënd essence li ci des nga dund ci ba tam ba tey da ngay xam ni gën naa xéewale rek mais teewul ba tey yenn saa yi ñu def live waxtaan suñu Facebook yenn saa yi itam ñu def ay interview ku mel ni Sénégal wala yeneen sites yi loolu rek moom moo tax mais ba tey lañu daan def bàyyi bàyyiwunu ko ndax dara mënta tax ñu bàyyi ko loolu moo ci nekk. ba tey actualité yi waaw actualité yi tam ñu ngi ciy wax de temps en temps bu si bu dara xewee site internet yi. Macky Sall laal Macky Sall nag dégg naa Macky Sall xaritam la. président Macky Sall nag ayda président Macky Sall nag Aïda euh, mm. euh, man mooy sama président euh, président Macky Sall ñu ngi koy ñaanal gudd fan ñu koy ñaanal wér mook Adja fay Faye Sall barki démb dafa am ko woote woon ci benn émission bu ñu ma invité woon naan oustaz yi di dem ci président ma ne ko ndeysaan dañ ko gul rek xam naa ne duñ ko mas a te woote la bëgg président bu ñu woowee suba bu ñu woowoon dix heures six heures buntu këram la ñuy fekk bu ñu woowee dix neuf heures këram la ñuy jullee tàkkusaan su ma woowaatoon tey ma dem nit ñi nañu dalal seen xel ci loolu man Macky Sall mooy sama président moom laa faral awma kenn nag xar ma yàlla du opposition bi kenn mais sama xol bi président ci nekk moom ma defal lu ma kenn defalul ma teg ko fu ma tegul kenn jàppee ko nu ma jàppeewul kenn lu <laughs> ma defal koy bari na ay da ah, mais xam nga euh, cat cat gi daa bari léegi ci jamono bi cat ah, gi ah, dama damay <laughs> bañ ñu catuma <laughs> mais daal xam naa ne daal Macky Sall moom ayda da hmm. na ko yàlla may gudd fan léegi sama waxtaan yëpp loolu laa koy tëjee Macky yàlla ko yàlla may gudd fan euh, Adja Marème Faye Sall yàlla na ko yàlla may gudd fan euh, Moustapha Diop maire Louga hmm. xam nga ko yàlla na ko yàlla may gudd fan Abdou Aziz Ala Ndiaye xam ko <laughs> xam nga man sama nit ñi ñëpp a leen xam. leen xam man sama nit ñi man. Uh-huh. Euh, dama leen di sagoo. Uh-huh. comme niñ may sagoowee man. man samay nit dama man samay nit man sama nit dama ko man damaa mën sama nit dama lay téye. ba ñu ma ci xas. Uh-huh. ba ma lu ne la ñuy wax samay nit jàpp rek Abdou Ndiaye sama nit la xam nga ko. xam nga sama digganteeg moom. ñii ma la limal ñëpp samay xarit lañ samay nit lañu. maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waxtaan bi neexoon na bëggoon nañ ko guddal waaye amoo jot comme mu ko waxee woon ci début bi ma bàyyi la nga nuyoo ak message bi ngay lancé sénégalais yi nag. jërëjëf Aïda maa ngi bég lool di ñaanal waa Sénégal nag ndax Sénégal moom ñoo dalal baax ci Sénégal mhm. bi ma ñibbisee jóge Italie euh, ñoom laa doon. njëkk a defal sama première interview dëgg yàlla gàmm tiwaawoon nit man ak ñoom kóllëre googu moom dañ koo séq gàmm tiwaawoon bu jot <laughs> ngoon gi damay ñëw séq ak ñoom ay waxtaan loolu nag dara du ko dindi mhm. incha allahu rabbi ndax yéen ci samay nit ngeen bokk mhm. yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def fi sutura def fi xéewal ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi amagul borom kër yal na leen ko yàlla may ñi amagul soxna yal na leen ko yàlla may corona bi yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla na yàlla dimbali sunu kilifa diine yi may leen gudd fan sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla sàmm. sëriñ Mountakha yàlla na ko yàlla sàmm. yeneen kilifa yi fi nekk yëpp yàlla may leen wér ak gudd fan ba li nuy liggéeyal diine ji ak tarixa bi yàlla mottalil leen ko maa ngi bëgg lool di ñaanal ñëpp. peut-être message bi nga wax ci féticheurs yi nga xam ne dañuy mujjee après sacrifice yeeg dem. temps yi gis nañ fi soxna suñu rey ci loolu. mais Aïda moytu rek xam nga bu ñu demee ba toll ba nekk ci réew moo xam ne nit ñi. dafa Sénégal dafa waaw nit ñi am alal wala am pouvoir da leen a jaral lu nekk. Mhm. sacrifice yi fii euh, rey nit ñi fi cat yu bari yi kort yi senegal dafa métti de. Mhm. senegal réew mu doy waar la réew la moo xam ne réewu ñaan la ak muslu foo toll rek di ñaan tey muslu tey nëbbutu. parce que nit bu fekkee lépp loo bëgg a def ñëpp xam ko olof nee na ku ñëpp xam foo jëm doo yegg Sénégal ngay gis kuy togg añ añ bi pareegul mu dugal ko ci sinabam bi ne tey journée maafe la maa ngi nii ci waañ bi def sama jongoma def sama maafe waa kër gi lekk guñ ko bët yëpp xool ko cat yooyu dafa am te nit ñi duñ ci bàyyi xel ko defee loolu lépp ñu di ko moytu kuy def lu bon nga xalaat yàlla xalaat sa bàmmeel xalaat ni bis dana ñëw nga wéet ak yàlla ba foog ni yow rek la bindoon loolu war naa tax ku ci nekk bàyyi xel yàlla yéen ñu nuy weexal xaalis tem pour def lu bon ngeen bàyyi xel yàlla xam ne dangeen ngeen moom àdduna boo fi nekkee pouvoiru àdduna bi yàggul kenn yàggu fi bul liggéey nit bul def nit lu bon bul def nit lu soxor bul attaqué nit bul def dara lu ci nekk rek bàyyi ko ci loxo yàlla kon nag kàddu yooyu laa doon dénkaane mhm. yàlla ñu yàlla may wér yàlla ñu yàlla may gudd fan yàlla à la prochaine fois. Inch'Allah. Merci.